ba wureegul ci jamono ji nga xam ne ni ah, ñu ngi koy waxtaanee ponk bu di mel jamono ji sax jàppale ne moom ñu ngi koy toppee ñàkkub ah, permis jamono jamuy dawal waaye tamit loolee ñu dippee ah, faux et usage de fo ay ponk la rek yoo xamante nag ay naataangoom yu ci mel ni Cheikh Yérim Seck daanaka faxas nañu ko ba mu seet jàpp rek ne jamono ji la na taxa a ci jëf ju ni mel daal bokk na ci daal daal di ko fi jëlee maanaam ab campagne d'élimination ñoom ñooy polis police nationale bu ñu co jógee mbokk yi dañu àddu jëmale ci lu ñeel nag département bu fleuve Sénégal jàppale nag ni jamono ji loole woy na rek di jur njàqare ca boor boobe ci biir réew mi jawrin bi gàlloo wàllu ko hydraulique di Cheikh Tidiane Dieye moom demoon na nag nemmeeku ji yëf yooyee daana nag def ab xayma ci bile jotaayu xibaara mbokk yi kon ci tenk lu ne mel moom mooy li fi gën a fës bu ngeen taaxirloo tuuti rek bàkk bi noppee ñëw ak ci faram gi. gërëm leen sant bu baax a baax ci ànd bi ak kóolute gi mbirum njiitum réew mi Bassirou Diomaye Diakhar fay la ñu koy tàmbalee jàppale nag ni ndege ni tey jii ci ajjuma ji bu uh, guddi ga maanaam nag bu juróom-ñeenti waxtu ci ngoon na jotee moom la mu fas yéene def bokk na ci uh, janno ak askan wi muy nag ab déclaration de presse boo xamante ni rek dana amee foofee ca boruk palais de la république loole ñu cay xaarandi nag ay ponk yu bëri yoo xamante ni rek ñeel na sax lu am solo fii ci biir réew mi jàppale nag lu ñu mel dañu ko mën a teewlu fi lekk uh, ci kanam laata loolu mbokk yi lii ponk la boo xam ne junjoon naa leen ko ci bopp xibaar yi ñel na nag tegub loxo Ameth Ndoye ndegeen yi démb jamono ji ñuy àddu ngeen di teewlu jàppale ne moom moo ngi nag ci loxoy yoon ci wàllug garde à vue ginnaaw nag conférence de presse maanaam janno ak way taskatu xibaar yi nga xam ne rek démb ñu ngi ko doon amal moole bokkoon ci rek ci la ñu duppe 2DL nag loolee bokk na ci rek loo xamante ni ni ñu ngi koy toppee wàllum dawal te ruloo nag permis waaye tamit faux usage de faux loolee daal di nag noppee jur coow Mamadou Kanté lañ ci àndal. mbir yi mu ngi xewee gannaaw bu ñu amalee ab conférence de presse ngir fësal seen programme bu bees bu ñu tuppee devoir démocratie ak liberté gannaaw bu ñu génnee ci salle bi takk der yi daal di teg loxo Ameth yi ñu koy toppee ñàkkum permis de conduire ak faux et usage de faux. moo ne si seen janoo sax ak taskatu xabaar yi mbirum Ahmed Ndoye mi jot nañ ko fa waxtaanee ba Cheikh Yérim Seck daal di ne dana déposer plante contre police. moom bi ñu koy arrêté assurance oto bi mi ngi nii carte grise oto bi mi ngi nii permis bi ñu jël attestation bi mi ngi nii prolongation attestation bi moo nekk nii ñu jël permis mu dem ñaari yoon ñetti yoon. pour jëli permis ñu koy gololoo mu dem ba même attestation bi ay pexe dëgg lañ def pour jotaat ci attestation bi parce que même dañ bi ñu jëlee permis ba pare ñoom dañoo def ay pexe ba nanguwaat attestation bi yeneen source xam le ni nag numéro permis de conduire bu nekk ci attestation bi kii nga xam ne ni moom mooy chroniqueur bi moomu ko bu ñu sukkandikoo ci yooyu la source mbir moomee mu ngi xew ñaar fukki fan ak benn ci weeru octobre bee ñu weesu gannaaw bu benn motocycliste mbëkkee oto bi nga xam ne ni Ahmed Ndoye moo ko doon dawal a ci noonee le brigade bu Sébikotane daal di def constat d'usage ba Ahmed Ndoye daal di leen jox attestation ci place su permis de conduire bu ñu amee l'enquête boobu nag gendarme en chef bi daal di sàkku ci service compétent yi ngir ñu xool bu nekkee Ahmed Ndoye moo moom am déet permis de conduire bu ñu def ci attestation yi bu ñu sukkandikoo ba tey ci source yooyee rapport enquête bi fësal ni numéro bu permis de conduire bi nag beneen chauffeur moo ko moom ci noone le gendarmerie bu Sébikotane sàkkoo ngir ñu wut ci Ahmed Ndoye ba teg ko loxo gannaaw loole nag brigade de recherche bu Faidherbe moo ko mujjee teg loxo daal di ko yóbbu brigade bu sebi Sébikotane Mamadou Konté jërëjëf jàppal nag ni ci wet gi Amnesty International ñoom jamono ji la ñuy naqarlu bokk na ci rek yenn ci jëf yi nga xam ne nee nañu seetlu nañu ko fan yi bokk na ci nag lu jëm ci taskatu xibaar yi nga xam ne rek ñu ngi leen di woo ngir rek ñu daal di wuyu wala bokk yenn ci euh, doxuk ñaxtu yi nga xam ne daal ñu ngi ko ci tere ñoom ñu jàpp rek ni la ñu doon bañ la ci jamono yu Macky Sall mel ni daal tey jii ci yoon woowee la ñu daal di nekk. Ce qu'on note jusqu'à les personnes continuent à li ñu nemmeeku mooy euh, nit ñi ñu ngi leen di woy di euh, convoqué surtout euh, journalistes yi délit politique wala ñuy jàppe ne ay délit politique ñu ngi ci sunu arsenal ba tey ay nit ñu ngi leen di wéy di convoqué ci loolu beneen bi itam ay manifestation ñu ngi koy woy di tere donc jàpp nañ ne bu ñu defee législative yi ba noppi Euh, dañi kon ñëw ci réforme yi ñu ñu waxoon ngir fexe kon ba li ñu dundoon fii ci ñeenti at yi mujj ba tax sax ay doomu aadama ñàkk ci seen bakkan loolu bañ a amaat fii ci Sénégal te ñu fexe itam ba Sénégal mën a dund démocratie bi ñu ko mës xame xamee. les ressources soient mobilisées pour que le Sénégal soit la démocratie euh, qu'elle qu'elle prétend ñu àddu jëmale nag ci Cheikh Yérim Seck mi nga xam ne samp na nag démb ab mouvement bu yespek loolee ñu depee ko rek devoir démocratie liberté de la citoyenneté fii ci ko Sénégal jàppale nag ne mouvement la boo xam ne ëmb na ay taskatu xibaar ay chroniqueur ak yeneen ci ay sama Matar bari ci leeral. plateforme citoyenne bu yees juddu na bis ni tey ñu ngi ko tuddee nag programme de dl citoyen 221 ka ko jiite nag moo di Cheikh Yérim Seck di journaliste chroniqueur. bi les plateforme li ko tax a jóg bokk na ci banqaas yi nga xam ne moo téye démocratie bu Sénégal. dañuy ñëw wan leen lan mooy suñu feuille de route. plan boobu lépp a ngi ci plan d'action boobu lépp lu ñu constitution ak loi may pour aar démocratie danañ def ci réew mi loo xam ne kenn mësu koo gis kenn mësu koo xalaat te kenn mësu ta jàpp ne lii mën naa nekk. plateforme bi xam ne na ko bokkul ci benn parti politique. wante nag fas yéene na dugal loxoom bu baax ci tabax réew mi jaarale ko ci ubbi xel yi waaye itam dellu ci li nga xam ne moo di suñuy valeur parce que ñun duñu parti politique nekk ñu fi pour di xoole ak di wax ak di politique di jéem a position déedéet ñun lu ñu bëgg mooy wan réew nit ñi ni lii lañu bëgg a def te dañ koy def nit ñi gis ko te buñ ko defee nit ñi dañuy gis njariñ ni lii moo taxoon ñu def ko yéen Sénégal bu fekkoon ne da ngeen a bëgg ñu leen taxawal teem bu fekkoon ne da ngeen bëgg ñoo xam dañuy veiller seen ay intérêt kenn du yàq réew mi jàpp leen ni mën ngeen ko am ci groupe bi plateforme de dl citoyen 221 bëgg na dakkal dérive yi nga xam ne régime bu bees bi moo ngi koy amal bokk na ci anam bi nga xam ne moom la ñu yore réew mi waaye itam salfaañi ak ak yelleef doomu aadama yi. gis nga ñii lépp lu ñu tegoon Macky Sall danañ leen teg lu ko gën a tar te duñ leen saaga duñ leen xas. te lépp lu ñu def ci réew mi lépp lu ñu fanaanee nas bu ñu xëyee suba ñu danañ ko fecc teg ko ci teg ko ci teg ko ci teg ko ci pénc dañuy def lu ñu mën ba joyanti lu ñu mën a joyanti. bile plateforme daanaka amul benn toggaay ndaxte soobu na ci xeex bi ba noppi ci loolu mu daal di jël fukk ak juróom-ñaari avocat ngir indi ay leeral ci yenn ci ay bu ci mel ni bu ONAS wala sax bu ASER. mbokk yi ñu barastiku nag ci lu ñeel wàllug politique jàppale nag ne coalition takku wàllu senegal soxna ya fa féete jamono ji takku nañ ba wow kong ca lu ñu bëgg rek bokk na ci am nag ndam ci wooteeg législative yi ñu dëgmal Thérèse Faye Diouf moom moo yor seeni kàddu ñu teewlu ko. la femme sénégalaise souffre parce effectivement gis nañu tool yi am nañu difficulté dem école étudiants yaa ngi xeex ci tali bi ndax seen problème bourse ñi amoon bourse familiale. yónnee nañu équipe ANSD ci biir équipe municipal yëpp ci biir mairie ñu ngi defar ay enquête pour génnee leen pour li nga xamante ne parce que jàpp ne ko dañu ànd ak nguur gi fi nekkoon. loolu bu passé comme niñ ko waxee nii boo buggee lekkat li seen saak amaat ceeb bu doy amaat diw bu doy am jën yu naat ci prix yu yomb jox leen majorité opposition bi takk wàllu Sénégal loolu la ñu woy ci xibaar yi wax ci leneen bokk na ci rek coowal fleuve Sénégal mel ni nag jamono ji daal a nga des ca xeeñ ndax ca askan wa fay yeewoo ñoom ba léegi rek ña nga ca boruk njàkkare waaye nag loole ah, tax na jawriñ bi di Cheikh Tidiane Dièye des nag di ca àddu ginnaaw nag ba mu fa demee ngir rek saytu yëf yee la mu fa xamle moom mooy nag daañu ci def seen nag kem kàttan ngir rek sóoraale lépp loo xam ne daal mënees na ca amaat mais saint ndox mi mu ngi jëm si fii li ñu wax crue bi moo ngi jóge foofu di ñëw fii ci Saint-Louis yegg seegul nag ndax pante la ndox mi dafay dox di ñëw ñu ne nañ ko njëkkee fii pour ñëw xool si li nga xam ne mën nañ ko fee tàmbali anticiper balaa moo yegg si li ñu war a defaraat yëpp ñu defar ko moo tax mu njëkkee ci dig bi nga xam ne mooy daaru benn la ci dig yi nekk ndar di protéger dëkk bi mu amoon ay vulnérabilité na am na ay partie yoo xam ne xaw nañ gasu boobu mi mënoon ñëwoon mën na faa jaar waaye forces armées actuellement ñu nga fa génie militaire pour defaraat ko ba bu ndox mi ñooy dugg ci biir quartier yi donc loolu mooy bi nga xam ne njëkk na beneen bi quartier yi nga xam ne nag ndox jot na fee dugg muy xaar yàlla ñu ñëw fi seet si leen euh, noonu lañ koy jàppee rek ba nga xam ni incha allah lu mu laaj ñu mën koo cee def moom Cheikh Tidiane Dièye sax la ñuy desandi leneen loo xam ne waxtaanee na ko rek bokk na ci eh, li nag wundu ponk bi ni mel moom nag jàpp na rek ni jamono ji loole am na ci rek lenn loo xam ne daal jotee nañu ko gis ginnaaw bi lekk visite loole la mu doon ñu teewlu ko mu wax ñu ko. moo tax lii am ma dégg ñu bari naan eh, dañu def ay lâcher maanaam ndox mu bari dafa amoon ci barrage u Manantali ñu bàyyi ko moo dugg ci dëkk yi inondé ko du loolu wala du loolu rek pour wax ci wax joo xam ne mooy waxu technique. bokk na ci waaye la dafa am lu ko jiitu ndax nawetu ren bi bu tawee lu bari ci Guinée taw lu bari ci malit ndax Mali li fi am ci inondation gis ngeen ko ndox moom mépp dafay dugg ci Bafing dugg ci Bakoy dugg ci Falémé ay affluent la maanaam ay dex la yoo xam ne ñoo ñëw dugg ci dexu Sénégal mu yokk volume bi ba dex gi rëy bi mu rëyee indi ndox mu bari ba ci barrage u Manantali Manantali fees bi Manantali feesee Manantali du rek barrage ndox day defar électricité loolu ñu bàyyi li muy tuuti tuuti bu ñëwee fekk ndoxu taw bi mooy indi ndox mi bari ndox moomu nag la ñuy gérer tey mooy phénomène naturel ak climatique état bi xamoon na ni lii nawet bi dina am ndox moo tax lii ñuy def lépp lu ñu waajaloon la defoon nañu ay anticipation gox bu nekk xamoon nañu ni bu amee nii lañu koy mën a taxawee. ca barug Kédougou ñi nga xam ne nag ay liggéeykat lañ féete ca barug Sayer nekk nag ab entreprise du fa nekk jàppale nag ni. mot nañu rek lu toll ci ñaar fukk ak juróom-ñaar yoo xam ne rek dañuy uh, tekki seen ak ndombal tànk fa nga xam ne daal ñoo fa doon liggéeyee ñoom ñoo ñee jàpp daal ne ki amal lu ni mel du keneen ku dul préfet uh, ba fa féete waaye tamit inspecteur du travail ñoom ñëpp daanaka ala na naqari rek yekki nañu ko dénk ko suñu ndaw. biñ ne am na licenciement pour motif économique dañu toog ñu waxtaan woo ci kanamu préfet département Kédougou. ci kanamu inspecteur du travail ci kanamu syndicat bi ci kanamu ñi nga xamante ni ñoo nekk ressources humaines ñi nga xam noo nekk SAER emploi AMS ak PMC société mère ñu tënk tënk nga xamante ni tënk yu rafet la biñ leen bàyyi leen ñu xiif lu yàgg bañ leen fay seen salaire ci leen leen di woo benn par benn ñi ñu leen di jox deux cent cinquante mille ak seen salaire ñii ñu woo leen ñu ne ñoom du ñu jël loolu moo nekk li nga xamante ni respecté wuñ protocole d'accord bi nga xamante ni defoon nañ ak kilifa yooyu yëpp te loolu bi ñu koy def dañ ko def ci ginnaawu délégué du personnel bi koy def woowuñ délégué du personnel dañ ko def parce que ñoom joxuñ kenn ba tey ci wàllu kaaraange ñeel nag bërëbu liggéeyukaay yi jàpp leen daal ni ab ndaje la ñu amal ngir rek. Euh, jël ndongo yi nga xam ne ñoom ñoo féete ca baruk inspection d'académie bu Thiès euh, li nga xam ne rek moom mooy ay jumtuwaay ngir gën leen a dimbali euh, ci lépp loo xam ne rek moom moo ñeel seen ak liggéey ñu teelu ci rek kookee di Samba Set tey ñu ngi daje fii ci cadre remise matériel de protection individuelle ñu koy jox nag apprenant wala élève programme PF2E ñu nekk fii dans la région de Thiès Euh, matériel boobu nag ministère en charge de la formation professionnelle euh, moo ko joxe euh, à travers donc la coordination le coord la coordinatrice du programme pf e. ñëw pour appuyer élèves yi pour ñu mën a jàng bu baax mu ñu mun a aar seen bopp matériel bi nag bëri na vraiment dina permettre xale yi ci nekkee ci pratique ñu mun a aar seen bopp geste vraiment gest important la geste bu baax la donc ñu ngi remercier euh, madame la coordonnatrice mais aussi le ministre en charge de la formation professionnelle et technique xale yi am nañu OPI bu baax yu doy am nañu quatre métiers électricité horticulture mécanique et habillement ñu àddu nag ci beneen nag ndaje bu ñu doon amal loole nag ñeel na ñooñu di waa AGS nag ñoom daal di doon rek màggal lu toll ci juróom fukki at yoo xam ne boobaak léegi ñu ngi rek fii di xeex seen nag combat des na ci nag jamono ji li nga xam ne moom moo jëmoon ci juróom fukkee lu ko anniversaire bile la ñu ca def ne génn xayma waaye tamit ana fan la ñu jëm Ousmane Ba lañ ciy teewlu. ginnaaw juróom fukki atu xeex ngir aar ak ak yelleefu jigéen ñi ñii di waa association des juristes du Sénégal nag ñoom dañuy tirer seen bilan le fait que ñu am juróom fukki at rek nekk fi association bu am juróom fukki at yaakaar naa ne loolu rek mën nañoo jàpp ne ndam la. yéen dañ ko daan métital métital yoo xam ne xëy na daan yi daal ki koy def surtout bu fekkente ne ci biirab sëy la loolu tam daan ya amul woon solo léegi yokk nañ ko. criminalisation mooy képp koo xam ne yaa ngi sàkku ji sàkku sàkku ay xaleel wala jigéen wala góor ndax góor itam dañ koy sàkku et c'est malheureux ah, loolu yëpp ñi nga xamante ne ñooy def yooyu xeetu ñaawteef daan yi leen di daan gën a métti ci ñoom. loolu itam am nañ ko ci 2020 bi parité am na fi. mu doon ab bilan bu rafet lool ndax gis nañ ci ay jéego yu am dayo waaye nag ñoom naruñ fa yem ndax li ñu bëgg mooy sukkandiku ci référentiel bu bees bi ngir gën a dëgëral seeni ay jéego. référentiel bi de ñun jàng nañ ko ndax ñoom partagé nañ ko gis nañ li ci ne ah, gis nañ ci ay pàcc yu am solo yoo xamante ne ci mbiru jigéen ak góor euh, égalité boobu la jëm ak équité ba nga xamante ne euh, ci àq ak yelleef dinañ ci am ay ay jéego yuñ ci dox ñu ne ko nag loolu warul yam rek ak ci bind bi rek ci biir référentiel bi ñu ngi xaar ñu jox ci ay jéego ñun AJS bu dee liggéey loolu rek la ak li nga xam ne mooy suñu wàll di suñu statut ak suñu mission mayñu ko nangu nañ cee dugal suñu loxo kon nag loolu am nañ ci yaakaar. waaye nag association bi li ñu saytu mooy problème bi gën a am dayoo ci réew mi mooy ndool bi ndax moome moom mooy indi jafe-jafe yi nga xam ne jigéen yi ñu ngi koy jànkonteel li ci mel ni fitnaal bi leen di fitnaal ci seen sëy yi harcèlement ak yi ni mel. Ba soxna yi la ñuy desandil nag jàppal nag ne loolee bokk na ci rek ngir waxtaane euh, lu jëm ci bés bi nga xam ne daal ñu ngi ko jagleeloon ab dépistage bokkoon nag ci li nga xam ne ñu ngi ko amale foofe ca Njaayeen Pendaaw nekk nag ca arrondissement bu ci le Boubacar ñi nga xam ne nag ñoom ñoo sekkoon lu ni mel ñoom ñëpp fasal nañ ci li nga xam ne daal moom la ñu ca jëlee ñu teewlu leen. Euh, bés tey bi nag euh, si ñeent ñetti point lañ ko tënkoon bëgg ko def loolu ñu préparé woon mooy def dépistage journée bi bool si def flom ci vaccination mooy yee nit ñi lu jëm si ñàkku yi bu topp bi mooy ñàkk xale yi euh, hôpital bi mu woo ñu si diggante bi wax ñu actuellement situation hôpital bi dafa dafa doy waat amul benn sang bu fi nekk ñu ne nag nañ si profité wu si defar le don de si ñetti activité yëpp ñeenti activité bi yàlla alhamdulilah yàlla may nañ si luñ si doon séntu am nañ ko su door sant rek la ñu am vingt cinq postes seen ko ñu am lu ëpp loolu maintenant si dépistage bi pour l'instant ñu ngi am plus de téeméer yu teg ñu ngi séntu am ñaar téeméer fekk dix huit heures voilà forum bi aussi yee nañ nit ñi ñu wax leen la moo jëm si vaccination di pàttali ñu aussi pourcentage ñaan pen daaw euh, juróom benn case ñu ngi bokk si post bi si poste yi nga xam ne yu gën a naqadee gérer la bokk parce que benn poste sant pen daaw nga xam ne réinduction bi ëpp na vingt di ko jaajëfal moom Sileye Diallo mi ñu taataanal yooyu lekk kàddu mbokk yi sax yegsi nañ ci ponk bu mujj ci bile jotaayu xibaar di yéenekaay yi

ci li nga xam mooy wàllum koom ba laal wàllum justice ressource naturelle ak yenn poñ ba tey réew mi quotidien nee na daal gis nañ ne ci diggante Amadou Ba ak Ousmane Sonko daanaka sax ku ci nekk daal mu ngi daal di jaajuwaat dafa mel ni itam ki nga xam kat moo fi nekkoon kandaaw Macky Sall te ñu ko daan ci présidentielle euh, daal ki nga xam kat mooy Ousmane Sonko moom bu ko neexee sax fixé ay réglam ba bi nga xam moo war am ci diggante Ousmane Sonko ak Ba enquête nee na kat ñaari style yu bokkul waaye ndax kii nag moom gestionnaire la boo xam kat ñëpp xam nañ xarañteefam ak juste boo nga xam ne kat contestataire dëgg la ba tey système bi mooy war a jàmmaloo anti système duel politique boo xam ne ay enjeu yaatu la l'info de ndax ki nga xam ne mooy dualité artificielle la diggante Ousmane Sonko ak Amadou Ba waaye dafa mel ni kat ñii nag moom faaleetuñu sax diggante Macky Sall Barthélémy Dias ñoo nga xam kat ñoo bokk sax ci course législative bi Vox Pop ne ko dëgg la ndax ñoom ñaar diggante Amadou Ba Ousmane Sonko ñoom ku ñu nekk ma ngay waajal waaye mi nga xam ne dañ ko tabb ci conseil jot na am waaye Diouf Bodiang Abass Fall Guy Marius Sagna nee mukk du ci daal dañ koy daal teggi les éco ne ko dëgg la kat sàmm yaay ci boppam personnel non grata ca Pastef ba tey ki nga xam moo nekk DG du port nee na foog ñu dindi sàmba wekk ki ne mooy njaay ba tax na kat ñoom ne kat bëgguñu sax turu ak sant wa ba tey ñoom jàpp ne kat ki nga xam ne kat moo bokk ci ñoom ñee moom moo leen daan yàq melengaan ba tey su a ne ko dëgg la ndax gis sen ne Pastef moom dafa mel ni dañoo bëgg rek sonal Jomaay ak Sonko waaye tam ne daal ci nii mbaa ci ne ki nga xam mooy Samba Ndiaye leen abal dañ ko war a dégager ndax gis seen ne moom ci boppam day taqal seen république ba tey libération dikkaat na ci li nga xam mooy mbiri Dieynaba Ndiaye ba tax na daal ki nga xam ne kat mooy borom këram moom teg nañ ko loxo enquête bi kat ma ngay révélé ne daal action commando la ñu teg ko doon jàppal ko loxo docteur Alioune Badara Mbacke ak ay ñoñam gis nañ ne ñoom ñoo ko traqué tëj ko kun teg loxo di amee ndooy di chroniqueur bi nga xam moo nekk ci Sen TV moom ci boppam kat ginnaaw ci conférence presse bu euh, Cheikh Yérim Seck lañ ko teg loxo ma nga ca garde à vue gis nañ ne kat euh, lañ koy daal toppee moom amul woon permis ab gone ba tey euh, la tribune kat ndax moom ci boppam la kaas na ko loolee kat lañ koy toppee waaye moom jot nañ koo teg loxo moom chroniqueur euh, ci diggante mook ca Égypte ci biir soccer ba na Sud Quotidien ne daal Gaynde Njaay nag moom euh, gis ne leen xaar kat du yomb seen digganteeg euh, Mauritanie ba tey ne ko dëgg la waaye itam dañ ciy kontaan lool ndax gis ne li nga xam kat mooy qualification mondiale jot nañ cee teg tànk ba na kat ñoom qualifié nañ waaye itam li nga xam ne kat mooy jël raaya bi ci diggante Mauritanie du yomb jaa ngeen jëf. jërëjëf Momar Cissé ñen ak ngërëm la mbokk yi fii la ñuy jaar nag yëkkati bi la jotaayu xibaar gërëm leen sant leen bu baax a baax ci ànd beeg kóolute bi beneen dig daje nag ëllëg lay doon ci yeneen jotaayu xibaar laata loolu rek ma ñaanal leen mucc gu sax te ak wër yàlla tur ko ci askanu Sénégal la jaa jëf.